auzu billahi min asheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamina kon ñu dellu siwaat ci noonu ñu ko daan defee rek muy liggéey boobu nga xam ne moom lañ faral di def muy gestion des fonds euh, ginnaaw bi ñu nuyoo nag mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngi ci Touba ci kanam kon nag tey jii ñu commencé pour wax leen mois de décembre euh, li nga xam ne moo fi dugg ak li fi des Euh, moo taxoon ñu ne ñëw fii toog tey ji nag man lañ sant liggéey bi ah li ñuy def nag mooy dañuy commencé ci euh, fi nga xam ne mooy zone nationale zone national nag suñ ci commencé commencé ci dëkk bu sell bi muy Touba wax nañ ne cinquante huit millions cent cinquante mille deux cent francs dugg na fi teg ci dakaar ci bureau bi nga xam ne El Hadj Ndaw moo ko yor muy cinq millions six cent quatre vingt mille cent francs Orange Money bi itam wax nañ ne. indi na six millions cent vingt sept mille six cent soixante un Tigo Cash bi itam indi na cent quarante six mille six cent dix sept ku ñuy wax ajaajoor nekk fa moom it indi na six cent quarante huit mille francs jurbel euh, Soxna Ndeye Ndiaye ak El Hadji lay nekk fa ñoom it indi nañ six cent quarante mille francs euh, Saint-Louis euh, Serigne Ridial Seck nekk fa ak Soxna Rama ñoom it indi nañ deux cent quinze mille francs Kaolack Serigne Moustapha Touré nekk fa moom it versé na un million cinq mille francs euh, soo demee Kédougou ku ñu wax Serigne Modou moo fa nekk moom it indi na trois cent cinquante mille francs nga dem Mbour ku ñu wax euh, Serigne Mor Sourang moo fa nekk indi na moom it six cent quarante mille francs euh, Goudiri ku ñuy wax Serigne Damba moo fa nekk moom it versé na quatre cent vingt cinq mille francs nga dem luga fekk fa sëriñ Moustapha Bachirou Mboub moom it versé na 1 million 52 mille francs Bambey euh, ku ñuy wax sëñ Abdou Fall moo fa nekk moom it versé na 50 euh, mille euh, francs département de Kébémer sëriñ Gora Sylla moo fa nekk ak sëriñ bu Kébé moom it versé na 605 mille francs daayira Baabul Ayaadi ci Agnam ñoom it ka fa nekk versé na 130 mille francs nga dem Ourossogui ku ñuy wax Soxna May Mbàkke moo fa nekk moom versé na cinquante mille francs nga dem Kolda ku ñuy wax euh, Serigne Moussa Sène moo fa nekk versé na cent cinquante mille francs nga jëm Thiès sëñ Mbay Sall moo fa nekk versé na cinq cent vingt cinq mille euh, francs nga dem ci euh, dëkk bu ñuy wax Jifeer ku ñuy wax Serigne Ousmane Ndiaye moo fa nekk versé na deux cent mille francs Casamance Serigne Modou Xari Guèye moo fa nekk versé na deux cent cinquante mille francs nga dem Ngunjaan ku ñuy wax sëriñ Modou Thiam sëriñ Modou Thiam moo fa nekk versé na cinquante mille francs euh, versement anonyme yi mooy ñi nga xam ne nii ay versement yi la ñuy def di ko def ci banque bi ñu ci bari nag dañuy verser xaalis bi te duñ joxe seen tur loolu bi ñu ko calculer mi ngi nekk ci 3 millions 238 mille 425 nga dem Ross Béthio sëñ Aliou Ñing moo fa nekk versé na 105 mille francs Kafountine sëriñ Cëmb Cissé moo fa nekk versé na 125 mille francs nga dem Ngaay soxna Maguette Jité moo fa nekk versé na 80 euh, mille francs jawili euh, ku ñuy wax Fatou Seck Gaye moo fa nekk versé na euh, cinquante mille francs euh, Kër Ayib moom it ku ñuy wax Serigne Modou Guèye moo fa nekk versé na cinquante mille francs nga dem Bokki Jawe ku ñu wax Taalakan sëñ Taalakan moo fa nekk versé na soixante-quatorze mille francs jaayante yi nga xam ne daayira marché Thiaroy yi ma fàtti ul ñoo ko def muy cinquante mille francs nga dem Xombal ku ñuy wax sëñ Mbaye fay moo fa nekk versé na cinquante mille francs nga dem Vélingara Serigne Mbacke euh, euh, Guèye moo fa nekk versé na cent soixante mille francs nga dem fu ñuy wax Daaru Salaam euh, Daaru Salaam Diouf Serigne Youssou Thioune moo fa nekk versé na six cent mille francs nga dem dëkk bu ñuy wax Bakel Diawara ku ñu wax Serigne Cheikh Anne moo fa nekk versé na cinquante et un mille francs nga dem Joal ku ñu wax Serigne Bassirou Thiaw moo fa nekk versé na deux cent soixante quinze mille francs soo xoolee loolu nag muy total bi nga xam ne mooy zone national ñi ngi versé kon ñoom ci zone nationale bi lu tolloo 82 millions 15 mille 3 francs loolu mooy zone nationale. léegi lamp yi nga xam ne moom la ñu fa indiwoon te di ko jaay soo ko xoolee ñoom li nga xam ne moom lañ ci jot a jaayagoon 2 millions 34 mille 900 euh, francs la. su ko defee léegi nag euh, ñu door a ñëw ci li ñuy wax zone Europe zone Europe bi nag euh, Grèce la ñuy commencé ku ñuy wax sëñ Baye Baye Omar Dia moo fa nekk versé na 1 million 458 mille 700 francs. nga dem Portugal euh, fekk fa Serigne Mouride Wade versé na 567 400 francs nga dem Suisse fekk fa Ndiaga Aw versé na 650 000 jaayante yi nga xam ne nii mooy Daayira Salaam bu Palma Espagne ñoom versé nañ 4 euh, millions francs Espagne itam sëñ Malick Dieng ma nga moo fa nekk euh, versé na 4 millions 934 mille 969 France ku ñuy wax Serigne Mouride Ndaw moo fa nekk versé na 685 francs Belgique ku ñuy wax Degen Thiam versé na deux cent soixante deux mille euh, francs nga dem Italie nag ci coordination ba ñoom versé nañ seize millions deux cent quatre vingt quatorze mille sept cent soixante douze. ku ñu wax sëñ Abdou fay moo fa nekk daayira Bayern na ñoom versé nañ deux cent soixante mille six cent quatre vingt quinze. nga xam ne kon euh, zone Europe boobu soo ko xoolee li ñu versé ci xaalis ñoom mi ngi nekk ci vingt neuf millions cent dix sept mille quatre cent quatre vingt nga door a ñëw ci zone Amérique ñu commencé ñu ñëw ci Argentine ku ñuy wax Pape Soda Sey moo fa nekk versé na quatre cent quatre-vingt mille nga euh, moo fa nekk versé na million Mexique ku ñuy wax Daouda Diack moo fa nekk versé na deux cent quarante-huit mille États-Unis ku ñuy wax Serigne Soy bu Seck moo fa nekk versé na trois millions neuf cent quatre-vingt-dix mille total zone Amérique bi kon soo ko xoolee mi ngi nekk ci cinq millions sept cent dix-huit mille huit cent francs soo fa ñëwee jógee nag nga ñëw ci zone bi nga xam ne mooy zone Afrique Euh, Nigéria ngay commencé euh, ku ñuy wax Serigne Alioune Badara euh, Séni versé na soixante-quinze mille Sina du moins Guinée Bissau Modou Atta Seck sëñ Modou Atta Seck moo fa nekk versé na un million quarante mille huit cent nga dem Cap Vert fekk fa sëñ Abdoulahat Amar deux cent quatre-vingt-neuf mille soixante-cinq francs nga dem Guinée équatoriale Serigne Khadim Diop versé na huit cent quatre-vingt-onze mille nga dem Gambie Serigne Khadim Thian versé na un million quatre cent vingt-six mille francs Côte d'Ivoire nga fekk fa sëñ Mor Faasa ak El Hadji Serigne Ndaw ñu wer un million deux cent centre Afrique Cheikhou Kébé moo fa nekk versé na six cent huit mille euh, francs Afrique du Sud ku ñuy wax Serigne Mor Dieng moo fa nekk versé na un million francs Mali Alioune Waaj moo fa nekk euh, sëñ Alioune Waaj huit cent cinquante deux mille cent Gabon Pape Ciss moo fa nekk versé na quatre cent soixante quatre mille francs soo xoolee zone Afrique bi kon ñoom euh, seen versement mi ngi toll ci sept million huit cent quarante neuf mille cent soixante cinq francs donc soo xoolee euh, total bi nga xam ne moom la Touba ci kanam versé ci continent yi ak Afrique ak Europe ak li nga xam ne moom la ñu am ci lamp yi kon Touba ci kanam mois bi am na cent vingt six millions cent trente cinq mille trois cent cinquante sept loolu mooy li nga xam ne moom la Touba ci kanam euh, versé ci diggante Afrique Amérique asi ak euh, zone nationale ak itam lamp yi nga xam ne nii ay 2 millions la loolu daal moom loolu la donc si euh, su ma ko répété mooy 126 millions 735 mille 357. Euh, léegi nag euh, ñu door a jàll ci li ñuy wax décaissement sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma dafa waxoon ne nit ñi su ngeen leen laajee lu ñu man nangeen ko dugal fu ñu xam donc suñu laajee ba pare nag war nañoo wax nit ñi ne nag fii la jëm ñu commencé ci décaissement yi ñu xool par exemple lu mel ne Kër Gol. nga xam ne mooy chantier bi nga xam ne nii mooy chantier euh, poste de santé bi foofu itam dépensé nañ fa benn dépense su 1 million 715 mille 600. Euh, chantier euh, Bobareel foofu itam am na ay dépenses yu ñu fa def yu tolloog 8 millions 323 mille 800. poste de santé Daarul Xadim foofu itam 11 millions 200 300 mille 725 def nañ ko ci ay frais ay dépenses yu fa jëm chantier bi nga xam ne itam moo nekk ci université def nañ fa deux million cent 2 millions 677 mille. su ko defee nag nga ñëw ci euh, chantier bi nga xam ne ni mooy Touba Ndiarème foofu moom ci poste de santé bi cent 900000 francs lañ fa def euh, commission bi nga xam ne mooy commission reboisement dépense yi nga xam ne wala frais yi nga xam ne def nañ ko fa 1 million 339 mille 900 la. commission bi nga xam ne mooy massification moom moom lañ dépensé 250 mille commission bi nga xam ne mooy communication 440 mille su ko defee li nga xam ne aussi euh, mooy charge fixe yi. nga xam ne mooy mois de novembre ak décembre suñu nee mois de décembre ak décembre nag mooy euh, ma euh, charge fixe yi nekkoon ci mois de novembre dafa dugg woon dafa dugg si ci mois de décembre moo tax ñu boole ko muy 5 millions 395 mille euh, francs léegi aussi entretien véhicule yi mi ngi toll ci million 2 millions cent mille 370 mille francs su ko defee itam ñu ñëw ci commission leeral bi nga xam ne moo doon yoroon mbirum làmp yi ci seen diggante euh, euh, liñ ci def lépp ba lamp yi mën a mucc ayib waa Touba gépp am ci mbégte toll na ci 2 millions 281 mille 500 euh, francs am na frais aussi yoo xam ne mi ngi ñi ngi ko frais woon ci Italie ci frais boobu nag suñ ko waxee mooy gilet ya fa ñu fa doon def ak itam journée bi nga xam ne moo nekkoon journée assemblée générale ba fa nekkoon ak matériaux yi nga xam ne dañ ko yónnee woon Touba ci kanam biñ ko xoolee daal seen frais mooy mi ngi toll ci 1 million 705 mille 159 mille francs am na benn frais boo xam ne nii frais bi mi ngi nekk 2 millions 109 mille 879 loolu nag mooy euh, euh, bolog yi nga xam ne moom lañ euh, war a waajalee tranche première tranche ci 2020 bi ak bi aussi am na benn 500 mille bu fa nekk boo xam ne nii mooy frais yi nga xam ne ci la collecteurs yi dem ak ñëw loolu mi ngi tollu mille francs soo xoolee nag total bi nga xam ne mooy total frais yëpp moo xam mooy décaissement yi mi ngi nekk ci 40 millions

59 loolu mooy li nga xam ne moo nekk actuellement ci eh, compte Touba ci kanam kon ñu di leen sant eh, di leen gërëm eh, te di leen te wax ne waaw góor nag waaw góor nag ku góor góorgóorluwul kenn du ko wax waaye ñu ngi sant ñëpp nag yàlla mi am jàmm daal yàlla nañu defal jàmm waaye Touba ci kanam daal la sëñ Cheikh Mbacke waxoon rek la di leen laaj nit ñi lu ñu man te di ko dugal fu ñu xam laaj lu ñu man dugal fu ñu xam nag mooy soo laajee ba pare nga ne lii laa laaj soo ko dugalee nga ne fii laa ko dugal la ca des nag moom xam naa ñu ñaan ci rek yërmande suñu suñu borom yàlla nañ ko yàlla boole defal ci barke Cheikhul Khadim